ça moom mu expliqué leen li nga xam ne ni moo jublu ci meuble en yi. macha allah may laaj rek yow ndax tey li nga nar a teg ci table ji bu lii dina neex de. ah moom lañ bëgg a teg ci table allah rabbi. waaw mm-hmm. ah, di leen présenté bon di bi en bois Djibouti quoi. ma ah, double la contient euh, ay ay ay table cheville mm-hmm. plus armoire de si battants avec une coiffeuse grand mal yooyu yëpp nag euh, ay qualité liggéey la bois bu bois Djibouti original. ñu koy liggéey fii si sorum bi lii bois massif la te wér na te am na garantie par rapport ak bois bi nga xam ne dañ koy importer armoire bi armoire bu mag la parce que porte yi dimension yu mucc ayib lu daal waaw intérieur bi yaatu na te dimension yi yi ngay am macha allah. da nga koy am ni nga ko bëggee daal. gis ne tamit euh, yéen ngeen di trop ci design bi tenir ci finition liggéey bi ñu faral di wax ne sax gis ngeen ne liggéey bi gën a rafet mooy bi nga xam ne daa am finition. lii daal am na finition man laay wax. Ah, moom rafet na macha allah parce que boo xoolee kii capitonnage la euh, kii la euh, cuir original la te yëpp ay création yi nga xam ni fii lañ koy créé. lal bi tamit si la bokk c'était en bois rouge moom tamit da leen koy présenté mu mu gis. effectivement parce que bois bi bois rouge la am na yenn bois yoo xam ne tamit mu koy. bois en bois à sapin euh, ak yeneen bois daal yi nga xam ni am na Sénégal dañ koy liggéeyee waaw waaw itam ay portes yu may présenté porte yi itam dañ koy liggéey fii chantier bâtiment de lépp dañ koy def parce que portes yi ay porte vitrine la kii ay porte à panneau la te même même bois la am nga si bois rouge am nga jibutu am nga yeneen ak yeneen yu ñu yu ñu fi am quoi ma lay présente porte lépp la ñu liggéey si wàllu porte daal ak ay fenêtre ak gris lépp loo soxla rek boo ñëwee fii di nga ko fi am. as gis nañu li ñu libaas euh, woon euh, waaye yaakaar naa ne moom euh, macha allah fii moom ku bëgg meuble de qualité rek bu rafet fii nga ko mën a amee. dëgg la Sonia comme ni ma ko waxee léegi ci après boiserie bi donc gis nga ñu ngi fii ci loo xam ne moo jëm ci wàllu aluminium comme ni ñu ko waxee Silabo aluminium day defar aussi ay fenêtre en aluminium te ni mu amee ci fenêtre yi aussi noonu la amee ci porte yi donc yii aussi dina fi am matière première bi pour ñi nga xam ne atelier yi nga xam ne aussi dañuy def dañuy def fabrique. boo xam ne nii aussi bu mu mucc ayib. dinañ defar aussi ay euh, rampe d'escalier aussi di defar ay euh, balkon donc di defar ay table ak yooyu yëpp lépp loo xam ne dañ koy defar ci ci bant rek mën nañ ko defar ci aluminium. numéro téléphone yi 835 07 74 wala 855 33 855 87 75 bu dee ci portable yi aussi am na 77 616 58 59. ak 77 430 57 48. kon euh, Horatio. voilà Sonia comme on dit toujours il y aura jamais de développement sans la main d'œuvre locale. boo gisee ñu bari di jéggaani di jënd yeneen bagage ci beneen réew mais yenn menuisier yi la man gis naa koo xam ne mënta daaj lu dul porte-à-rideau ak bangu añ mais day engagé armoire de six battants mais armoire da def yéex déplacé ba yéeg ci kaw monté ko mais ni mu ko monté man loxo la gàddoo pour yéegal ko ci kaw kaw kaw bâtiment bi. damay invité Sénégalais yi ñu ñëw jéem a xool liggéeyam ak mën-mënam parce que c'est un professionnel il a fait 40 ans de métier c'est pas rien dugg ci démb dugg ci barki démb te du menuisier banc du menuisier portarido loolu laa bëgg nit ñi xam ko. ba ci table yaa ngoone bu ngeen ginnaaw xam na rek ñu ngi ci top énergie top nekk fii ci lii deux voies yi sama expert moom ma nga nee yëg commencé expertise am nañ leen dem nu xoolaat waa top énergie tey ñuy tegaat ci table Euh, salaamaaleykum tonton ñu ngi lay nuyu euh, tonton rek euh, ñu ñëwoon fii fii ci Top Énergie ñëwoon fekk si la fi rek muy seen tonton Ndiouga Ndiaye mu yëngu rek ci wàllu lépp loo xam ne wàllu solaire la ñu tàmm ko sax di ko wooyee docteur Battery ndax moom def ci def thèse kon li ñuy def rek mooy tonton dañ lay bàyyi yow nga nuyoo bàyyi rek di la laaj tey lan ngay tegaat ci table ji ndax tegoon nga ci lu am maanaam. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu tey moom li ñu di moom lu bees mooy ventilateur solaire congélateur solaire. Euh, ay ampoule solaire yoo xam ne day chargé ak euh, batterie ak ay télévision solaire bi day dox ak vidéo ak clé USB tey moom loolu mooy li ñu tey ci kaw table yaa ngoon comme ni ngeen ko gisee nii muy daw batterie bu ndaw bi rek euh, moom moo koy doxal quoi kii mën na ko doxal ci ñaari ñaari guddi rek ak batterie mën na daw sans ñu ngi ànd ci ak yéen wan leen suñu congélateur solaire parce que ñu bëri dañu foog solaire du congelé fii comme ni ngeen ko gisee ni ni nga ko gisee waaw naa lii moom yéen a ko gisal seen bopp ko donc day congelé day congelé boobu kong ko waaw donc concentré nga xam ne macha allah batterie bii rek euh, moom moo koy dawal amit benn plaque 230 watts waaw moom moo koy dawal am nañ tamit beneen euh, congélateur bu gën a mag bi buy def 318 euh, litres boobu nag moom ñaari batterie yu mel ni ñoom ñoo ko dawal ak ñaari plaque top énergie moom boo fi ñëwee a ah, donc di nga am énergie sans bruit sans carburant sans facture et sans délestage. bon kii dafa nekk chargeur universel maanaam xeetu portable yëpp lay jël quoi euh, comme ni ngeen ko ni ngeen ko gisee nii donc euh, vraiment tableau bu donc donc moom moo koy euh, chargé quoi. te lii solaire la waaw te lii solaire kii ngay teg ci jant bi mu chargé ba fees nga mën am sa lampe guddi yëpp ak sa say yëpp ci guddi gi allah. te lampe bi tamit gis nañ ne par degré la noo bëgg mu leer rek noonu la mel quoi vraiment nag du mooy def publicité mais am na lii fii jaay mais yooyu pour sa lumière leer comme bii dafay xaw jafe quoi ak it changement portable ni mu gaawee ni ko bii defee tamit ah. solaire boo clé USB clé USB bi ngeen di gis moom ngay enregistrer sa vidéo donc soxla woo vidéo soxla woo décodeur soxla woo dara day jël tamit carte de mémoire quoi ci biir quoi te panneau yi c'est pour 30 ans donc batterie mën def ci yow 2 ba 15 ans donc vraiment c'est un investissement à long terme wax ne bi képp kuy jaay képp ku nekk def affaire u njaay boo amee constaté vraiment ñu ngi xattali bu baax a baax ci sa bénéfice. waaw parce que stress fay facture dootu la sonal mais tonton nag bëri na fi gis nañ ne fii am na ay batri am na li nga xam ne mooy ampoule yeeg lépp am na fi. Mm-hmm. yeneen yëpp tamit euh, wane woon nañ ko waaye mm-hmm. tamit ku ko bëgg rek fii la adresse bi ak numéro téléphone bi lañ lay bàyyi. nga joxe si waaw moom yomb na quoi ñun fii ñu ngi nekk ci Sacré Cœur 3 euh, euh, boulangerie jaune prolongement boulangerie jaune en face mosquée Aboukir Sadikh ñoo jàkk ñoo jumaa ñu ñoo jàkkaarloo am na tamit yi Euh, à 20 mètres am nañu fi beneen magasin am na si beneen magasin bu nekk Colobane euh, rond point euh, caisse de sécurité sociale fait rapide yi taxaw pour dem Dakar rek magasin bi ak foofu ñoom ñoo jàkkaarloo am na tamit ñu nekk Touba am na tamit ñu nekk Louga ak ak te ñëpp daal ci wàllu solaire rek la yëngu. waaw ñëpp ci wàllu solaire la numéro téléphone yi s'il vous plaît. waaw numéro téléphone bi bu ma sama boss man mooy 77 367 76 51. Euh, bu dee Castor euh, yaa suma frère Mansour numéro mooy 77 539 95 32 bu dee Colobane yaa suma seen femme moo fa nekk numéro am c'est 77 664 37 63 waaw yow daal moo ñu ma wax te ku fi ñëw incha am boobu tonton nag tey dama lay waaye damay béggalaale sama yumpaañ ndax dañ naan derrière chaque grand homme y a une grande dame kon nag suñu yumpaañ ñu ngi lay jaajëfal di la gàcce ngaalaama di la bàyyi yow it nga bégal ko waaw loolu moom am na ko waaw mais nag d' abord dama njëkk gërëm sumay waajur yi ma jur quoi mu suma ñaari yaay yi ak suma baay bi ñoom daay njëkk gërëm ak it waaw jërëjëf moom moom dama ko ñaanal yàlla rek. voilà euh, monsieur Ndiaye pardon s'il vous plaît voilà déjà euh, monsieur Ndiaye. comme la dernière fois li ma si waxoon. dañ la wax waxaat du bëri wax xam li ngay wax. parce que déjà république italienne ñoo la jox lii. diplôme que lii c' est pas c' est pas c' est oh, pas donné à tout le monde. on a écrit. attestato. sostitutivo di frequenza. si attestazione in Cigé Ndiouga Ndiaye. Euh, Metro Collegia in PND controllo non distruttivo vraiment c'est du italien te ñun ñëpp xam ne nit lépp looy def war nga am maîtrise bi nga am sa maam mu nekk ci àll bi nga nekk Dakar yor ay millions di naan ndox mu sedd sa kër climatisé yor oto bu luxe sa maam nekk ci àll ba mais c'est catastrophique il faut nga loolu benn candidature sax yóbbu ko sa maam kon yow laay waxal yow mi nga xam ne yaa may seetaan am sa maam wala sa baay wala sa nijaay nekk ca àll ba tàngaay di ko rey amul ndox mu sedd jëndal benn frigo fii nga xam ne mooy Top Énergie mu ciy chargé téléphone portable am di ci naan ndox mu sedd ci ventilateur nga am ci yàlla am ci yonent bi am sa sa vraiment am nga sama am nga sama voilà donc je vais vous faire signer ah, euh, euh, quelque chose qui va vous confirmer que vraiment à partir de d'aujourd'hui inchallah képp ku bëggati lu baax na ñëw ci ah, parce que vous faites vraiment de la qualité vraiment je suis ravi voilà vous pouvez signer ici en bas voilà ah vraiment kontaan naa ci yéen trop yéen daal Piknic Production yàlla na leen yàlla jàppale vraiment yàlla fu dem ak jàmm quoi la buona qualità in cui in ok tutto bene. ok grazie bene bene et domaine nekk booy dem police parcelle euh, ñu seet si nag ñi nga xam ne rek ñooy waa Touba Madiana Caro ñu yëngu ci lépp li nga xam ne rek mooy wàllu caro wàllu marbre sanitaire euh, kon nag euh, ñoom dañu ñëw seet si ñoom la la ñuy teg ci suñu table maam ji ba tey ma ànd ci rek ak ki nga xam ne mooy Horatio Ndiaye di sama expert ma naan ko lom en rouge waaye nag tey moom il s'est transformé en semi vert semi bleu li may def rek mooy dama naan nañ leen ko bàyyi moom mu commenter ko boppam. bon déjà lu may wax rek mooy été bi c'est pour le 21 à 10 heures le 21 juin 10 heures la été bi commencé incha allah. si nga man sama problème mooy sama expert moom ay couleur am day yàq ay bët nañ leen dal sama gars yi xool waa Touba Madiana ñoom lan la ñuy teg ci table ji. salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar ça va bien. table yaa ngoon a ñëwoon seet si la di xool waa Touba Mariana Karo ñoom lan la ñuy teg ci li nga xam ne rek mooy suñu table maam ji ci ay produits yu baax ñu ngi leen nuyu di la ziar di la bàyyi nga présenté. ah waaw maa ngi leen di fay nuyo di leen ziar aussi di kontaan si ñëw bi ngeen ñëw seet si ñu tey si Touba Mariana Karo man maa ngi tudd Koumba si maa nekk fii ci établissement Touba Mariana Karo nekk wetu police parcelle boo jógee Padois di ñëw rek en face banque crédit agricole bi. foofu lañ nekkee moo fas yéene nag wan leen sama bakkar yu baax yi rek bëgg ko teg sama taabalu maam ji. yow da ak muuraay bu jekk bi man ànd naa ci li ñuy def rek mooy dañuy nekk sa ginnaaw nga woon ñu karo yu baax yi nga nar a teg ci taabal. karo yii nii yii ay 30 60 la ay karo espagnol la pour façade boo bëggee def sa devanture kër mu rafet yii yëpp ay karo façade la am na ay marque espagnol am na aussi chinois mais ay premier choix la ay qualité yu baax la. rafet na dëgër na aussi te neex na gis daal boo ko tegee vraiment façade bu bu kii ngay am rafet ngay am. yii tamit ay grès espagnol la ak bii nii aussi ak bii gisoo yëpp ay carreaux espagnol moo nekkaat nii. waaw pour sa façade. pour sa façade parce que lii moom rafet na trop pour façade. carreaux espagnol la macha allah rafet na trop dëgër na qualité bu baax la. waaw gis nga. Ah, bii nii pour lan la bi sew na. plinthe la pour boo karalee ba pare comme salon yeeg yooyu mu may nekk ci rebooru miir bi donc moom la ñuy wax plinthe moom ngay teg ci rebord bi nii moo accompagner carreau bi boo ciy gën a fomp daal muy gën a am éclat. a fomp mu gën a am éclat du changé éclat bi du wàññi au contraire dafay yokk loo gën a nettoyé gën a defar mu gën a rafet. lii moom caro la wala wala lu mu doon. di rafet na salon la wala chambre à coucher lii mooy la ñu moom la ñuy wax grès poli 60 sur 60 moom tam gis nga grès grès italien la. te gis naa ne am na épaisseur. bu di ji sax macha allah grès italien la moom du toj du fel du def dara macha allah caro bi daal mi ngi ne gis nga ay premier choix rek ñoo fi am. am na aussi genre bi bii grès poli la li la ñuy wax grès poli donc bi marque chinois la mais premier choix la aussi am na yi ay marque tunisienne la ay grès émaillé yu sama expert yoon na ndax daa mel ni moom la doon expertiser léegi waaw bii tamit grès espagnol la moom itam mën na dem ci ci mën na dem ci ci ay couloir wala chambre mais du usé émail bi aussi du doon brillance bi de même day resté ni lay resté intact du changé ndax ay grès la yi aussi ay décoration moom la ñuy wax listel wala frise moom ngay def moom ngay décorer sa cuisine wala sa salle de bain ça dépend yii yëpp pour loolu la gis nga décoration yi nañ rafet bu bëgg dee gis nga. <laughs> te gis naa ne façon pâte bu nekk am na ci. waaw day am ay pâte blanche am na ay pâte rouge ndax am nañu ay normes européennes am nañu aussi ay euh, normes yoo xam ne Chine la jógee am na yoo xam ne aussi Italie lay jógee donc am nañu dafa dafa kii daal dañ ko diversifier dañ ko diversifier waaw gis nga de dëgër na. rafet na boo décoré sa cuisine mu rafet boo décoré sa salle de bain aussi mu rafet. lii daal dañu la dañuy wax ak ne Touba Madiana Caro moom lañ doon wër entrepreneur yeeg ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci wàllu bâtiment bâtiment war nañ fee ñëw ah seet ci caro yi rafet yi nga xam ne lépp qualité la. Mhm. ñooñu yànji bee nag ci kaw. waa bii moom caro kii la caro espagnol la aussi moom émaillé la moom itamit c'est la même chose ay chambre à coucher moo ko tax a jóg wala salon. nga ko def la ne Kumba daal euh, man li ma fi gis dama naan man doy na ma kon téléspectateurs yi euh, gaaw leen fii ci Touba Madiana Karo kon nag euh, daw si leen gaaw mais nag da leen di jox ak li nga xam ne mooy numéro téléphone bi fàttali leen adresse bi ndax daanaka yaakaar naa ne fii du fu ñuy présent dëgg la waaw dëgg la parce que place yi tax ñaar yu dend la boo ñuy fii rek donc am bu ñu dendal soreyantowuñu ñun ñi ngi fii rek boo jógee Padois jëm si parcelle bi en face banque agricole bi cité impôt domaine mooy Touba Madiana suñu téléphone mooy 60 mooy 33 835 17 03 wala 77 635 36 11 boo ci wootee rek di nga jot ñu indiqué la vraiment jaare defal la xéewal daal. Euh, sama expert nag sànq ba tey moom mi ngi xool waaye li may def rek mooy dama koy bàyyi mu wax ma lim ci xalaat waaye balaa moo ñëw lim son modde na doo leen ci wax ngir yàlla lii kenn mënu ko wax. Sénégal li muy rëy rëy 14 régions du Sénégal yëpp place bu mel nii koo gis sama bët mosuma koo may c'est la ma gis kara yu mel nii. ba keroog may gis leneen nag parfaitement d'accord couleur yëpp a ngi fi toutes les dimensions sont là je suis extrêmement satisfait et j'invite tous les entrepreneurs et tous les concessionnaires de venir ici acheter des carreaux parce que y a de la qualité ah y a de la qualité carreaux yi dimension bi épaisseur bi tout est nickel tout est impeccable. ci table ji moo ñu soxal ñu koy wut nag nekk fii ci marché Zing marché Zing nag en face rek tali syndicat bi buñ fi ñëwee suñu xel day dem fi nga xam ne rek ñëwoon nañ fii mooy boutique Lao di boutique Amadou saw nga xam ne lépp lu leeree rek ci tissu bu rafet ak képp ku fi sañse fii ci marché ci Pikine euh, moom moo la sañse euh, li may def rek euh, mooy boutique Lao di boutique Amadou Sow. yi fi nekkoon ko sama xarit aslu xam naa moom suñu jàkkaarloo maag yow du yomb ndax nag moom daa bëgg sañse bëgg ci sañse rek la ko teg ak temps kon nag li ñuy wax rek mooy li ngeen tegoon ci table ji mooy boutique laaw boutique Amadou Sow mooy coow ci dëkk ba tey. waaw di kontaan tam ci yéen rek di dolli kontaanaat fi mu toll ñu ngi waat ci boutique bi. mënatuñoo présenté waat suñu bopp moom dèjà ñëpp xam nañu moom ba pare. Mhm. di kontaan ci waa TFM dañoo kontaanoon ci yéen moo tax ñu dolli kontaanaat woowaat leen. Mhm. bég ci yéen. kon nag di laaj tey looy tegal. Sonia mi di kontaan ci moom tamit macha allah yal na ko yàlla may li mu bëgg daal ci liggéeyam bi ak waa TFM yëpp seen liggéey daal macha allah sant yàlla. asu looy teg ci table ji tey. taabul ji xanaa indiwaat li nouveauté rek yu bees yi waat fara fara yu mat fara fara yu bees mbubb fara yu mat la moom mu neex ñaw mu la neexee. waaw ñëpp a bul bi benn turquoise bu ànd rouge la daal. ak jaune marron boobu mbubb dafa jot jot mat sëkk riche amul fenn qualité te motif bi moom ku dala xool télé ba sonn TFM bii fii rek la am farafara yi gis nga dèjà xol yaa ngi farafara yi daa ànd ak xol ak musóor ak sër affaire bi 10 mètres la. 10 mètres yu mag waaw mbubb yu mag. bu ñu jàllee ci farafara ñu war leen per perlage yi. Mm. dañu motif yu bees tamit yu génn yu doog a wàcc yu nouveauté. lii mm. cristal la amul fenn ñoo ko commande li bees tàq la. cristal la lii mooy bleu bu dugal doore bi. mooy bu dee kuy sañse rek ngénte ceeb lu la neex bu ñëwee rek ñu sañse la ba mu baax. lii rose bleu la dugal cristal ak chiffon choix choix la dugal. ak euh, am garne dañ ko garne ba pare lii moom boo ñëwee moom da nga ñëw rek dagg sol. damaa gis ne tissu yi tamit lu am finition la yu rafet la. lépp ci biir finition choix la nouveauté la daal. nga bula moom. bula bu dañ ko taamu. foo ko sol la mu génn surtout bula bu dugal rouge moom it choix la bu am ay bouquet lépp ci biir. bi moom mooy choix velours bu dugal cristal. la daa am ay finition moom it. marron beige bi rafet ba dee. bii tam choix velours la bi moom vert la. vert clair mu dugal vert foncé am cristal nu mu la neex nga koy solee. te ñii mag yi sax mën nañu ko ñëw grand boobu. te dafa neex ceete bi lu la neex nga koy sañcee dafa nooy mag xale ñëpp a koy ñaw. man daal asulaay wër boutique Lao boutique Amadou Sow. da TFM rek laa wër man fu mu toll nii bàyyi naa sama yitte yëpp ndax TFM moom rek laay ñoom rek laay. bee bee Amadou tamit rafet na trop couleur boobu te daf fees. bi tam marron bu dugal rouge la. macha allah gis nga ay cristalam la àndal lépp choix la moom la c'est que soit volume dafa xew mais ça dépend ci qualité yi fii moom boo ñëwee ci boutique laaw amul saw marché zeng façon bu la neex moom mu ngi fi. ba tey pareegu ma ci yéen lii mooy brode autorisé dèjà moom laa sol ma dama ko fara fara ak gañilaa dama ko patissé brode autorisé ak gañilaa moo nekk nii am na jaune te qualité bu baax la autorisé pire la riche brode moom ku nekk xam na bëri na ay qualité waaye boo duggee boutique laaw rek nga xam ban qualité nga fi fekk. ba tey pareegu maa wax ak askan bi daal. ñu ngi ci mbasin riche yi waa boutique laaw Amadou Sow magasin fi moom mbasin riche yi bii couleur rouge la riche original la soo ñëwee rek ñu wan la qualité bi mbasin bëri na ay qualité mais boo ñëwee fii nga xam ne riche lañ la jaay jesner jesner bu riche lañ la jaay mbasin bii rouge la bii tam bleu turquoise la am na rose fuchsia bleu turquoise bi ne bi moom rouge la jesner bu rouge la bii bleu turquoise la am na rose sans départ couleur boo bëgg rek moom am na bii nag Amadou Ndiaye ko téye jasner bu jaune poussin riche original qualité soo lambee rek nga xam ne moom jasner riche la qualité bu baax la waaw léegi butigu laaw marché zinc en face mbedd syndicat bi ci garage Kalando yi soo wàcc en face rek soo wàccee escalier yi premier escalier yi sa première porte bi nga jot sa gauche am grille verte yi boo dugg rek Amadou Sow boutique la ñoo la di leen jox numéro téléphone bi 77 618 91 98 soo payee am na tamit 639 77 639 22 11 565 82 55 numéro yooyu koo ci woo rek di nga jot moom ci boutique Laaw marché Zeng en face mbedd syndicat bi première porte di nuyu tamit askan bi di leen sant di leen gërëm di nuyu waa TFM di sant tamit sama ñaari waajur kontaan naa daal ci émission bi dafa neexoon moo tax ñu dolli. voilà Sonia déjà li may waxaat ñi seetaan parce que boutique laa wax defe naa jaratul ma ci def expertise parce que defal naa ko fi déjà mais fi si point bi may bi am solo mooy déjà l'accessibilité parce que souvent di nga dem ci marché dem di jëndi mais avant ngay egg fa ngay jënde da ngay say poche sa xaalis ne muy ndax place bay ruqa ruqa goo xam ne balaa nga fay egg ñu taf la mais kii déjà amul ñaari foo tax tëli bi ngay benn pas maa lay wañal benn ñaar ñetti pas foo def nga dugg soo lu mu tàng tàng tàng dinañ jël boisson bu sedd guy teg ko sa loxo nga naan avant daraa xew soo soo ñëwee ñu lañ wax couleur bi nga war a sol ñaw bi ñu ko war a ñaw ba pare tailleur yëpp yëpp yëpp sañoon ñawal doo jëndee tissu fenn furul bitigu laaw parce que tissu te bi ñu lay keneen ku dee lu la dal yaa ko teg sa bopp bi ñu kenn dindatul fenn fenn fenn fenn comme ñu naan anaan bandiraabe ko monde entier euh, ari ari bidig laawo eh, ariye bidig laawo ariye bidig laawo signal fi yow ariye bidig laawo yëpp rek voilà. yaay solal premier du dafa métti lool jàppale ko waaye bu di passé bëgg daw mottali ngel nga tëgle tànk li journal ak sa ndoxan nga ci réew leen jigéen ñi kon jigéen suma soxna jigéen taamu naa la ma naree balaat ci kër gi daal di jàpp fee. ci nature prod boutique ba tey ci table ji mu ñoom ñu teg lu am table yaa ngoone bi ba tax na nag yéen ngeen koy laaj kon dellu siwaat fi du loo xam ne dañ koy bañ ndax yéen nature fii ci Touba Sandaga troisième ma leen di wax toujours en compagnie de Horatio Ndiaye muy sama expert kon Horatio encore une fois de plus la beauté et le bien-être c'est qu'une seule adresse nature pro boutique nature pro boutique la ñu wax kon nag li ñuy def mooy euh, damay xool ñoom lan la ñuy teg ci table ji tey waaw salaamaaleykum waa Sénégal dañu ñëwoon tey indi euh, fii si Nature Prod boutique pour indi leen benn encore si suñuy service yu ñuy fournir euh, blanchiment des dents la euh, suñu kii boobu mm, espace magique sourire la tudd ñoom li ko tax a jóg mooy dañuy weexal ay bëñ ba mu weex tàll léegi weexal bi du du acte médical acte kii la esthétique léegi ku si bëgg euh, place dañuy def sur place am nañ si ay kit yoo xamante ne danga ko kër nga defaral sa bopp pour commencer dañuy jël affaire bi ñu xool ban teinte moo ànd ak sa bëj teinte de départ bi suñ ko xamee par exemple ñu xool fii ñu ne yow S24 nga am léegi suñu jëlee tent boobu ba pare dañuy jël gel bi ñu introduire ko fii buñ ko introduire nit ki daf koy introduire si bëñam ñu jël lumière bi accrocher ko ko nii kese jeex na après day dem mu weex tàll léegi ku ko bëgg am nañ si ñett benn mooy Dakar ñaar lañ fi am am nañ benn Touba Sandaga troisième étage numéro 24 16 numéro bi di 77 120 29 29 wala 76 288 00 00 wala suñu site 3w point senemaket online point com sinon almadi euh, en face stade de Ngor bi am na foofu benn ci benn salon de coiffure bu tudd afro am na foofu tamit sinon Touba Mbacke la am Touba mosquée 28 kër Soxna Mbenn foofu lañ ko am. Euh, intégré espace magique sourire mën nañ ko intégré ñu installé leen sinon ñi nga xam ne tam dañu yore salon de coiffure wala kii de beauté pour bugg ki int kii mën nañ ko dem installé leen ko jaay leen produit former leen seen personnel. waaw boobu pro boutique ñi nga xamante ne di dëgëral bien-être am waa ji boo gisee léegi moom euh, muy élément chimique yi nga xamante ne mooy nekk ci engrais ak li muy maanaam te xamante ne day gaaw yaram da ciy jël lim ci soxla mag ñi nga xamante ne ñoom dañoo am dañoo toog ñëw ba fi nii mën nañ leen fekk ba seen kër dafa euh, liggéey amul benn problème tamit lii pour soulager bien-être nit ki la comme comme ay arthrose rhumatisme fatiguement fatigue euh, ak euh, yeneen yeneen di métti yu nekk si biir yaramam yii nii daf ci baax petit robot bi euh, lii day def ak acupuncture lii day def massage grand robot bi lii aussi day permettre sa sa di gën a mën a suivre koy sol comme ni ñu ko wanee fii nii rek da koy sol sa tànk sol ko sa cuisse yeeg yooyu yëpp day tax gën a mën a circuler rhumatisme arthrose affaire yu sew yooyu yëpp day tax tamit da ngay gën a mën a soulager par balle wala tee achifra yi ñu fi yor fii nii bii mooy tee antihyperglycémie mooy pour pour ñu am pour diabétique yi bii mooy tee antihypertension pour ñu am tension buy monter bii mooy am bii mooy tee amaigrissant pour ñi nga xam ne dañoo bëgg a perdre perdre poids wala mooy jeex maanaam ak corps bi yëpp euh, en général wala biir bii mooy tee énergie tonique na ba mu set wecc boo ñuul kukk kon fii ñàkk fee ñëw dafa am fu ñuy wooye espace majuscule bu am na pour dindi sa yëkkati boobu ba ñu ñi mais fii boo ñëwee mu set wecc wecc wecc wecc wecc mo ñu koy yi lay ay détail solom ñu la ñand sëñ sang ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox ceeb bu wér. waaw bisimilah Sonia maa ngi leen di fay di rafetlu seen liggéey yéen waa taaboolu Yangoon yi di nuyu waa TFM yëpp di rafetlu aussi liggéey bi ngeen di liggéey di ko yaatal di dem fép loolu ñu ngi koy rafetlu di leen si féliciter di leen encourager waaw sëriñ Sang taalibe Serigne Saliou li muy indi si taabal ji tey benn la si yi muy faj muy hémorroïde interne ak externe bi garab gi ñu ngi ko defaree njaj ak njàndam ak yeneen. xam nga garab buy faj hémorroïde ak buy dindi seere sax du benn des sa nit ñi dañuy dañuy jaawale loolu waaye ñun niñ ko composé ba pour loolu mën a nekk yëpp def nañ ko aussi am na beneen boo xam ne encore dafay renforcer sa kàttan pour si wàllu sëy yooyu yëpp defar nañ ko andi woon nañ si leeral keroog dinañ si indiwaat ay leeral tey aussi gën a yaatal rek lépp lu waxtaan bi laaj dinañ ko def comme niñ ko doon faral di defee si kàttanu yàlla barki Serigne Saliou mi nga xam ne lu nekk si ñun moom moo ko def noonu lañ ko fas yéenee defee soxna si nit ki nga xam dafa amee hémorroïde signes yi dafay ballonné biiram di jooy di yuuxu mën naa toog ay fan du soxla cabinet te yooyu daf bu yàggee sa mbaq gi maanaam lekk gi dafa nekk du rees normal mooy jural nit ki hémorroïde muy seere ñàkk soxla toilette dèjà loolu baaxul bu dee ku góor mën naa dem ba jural ko jafe-jafe si wàllu sëy moo tax ñu liggéey garab gi nga xam amul benn jafe-jafe pour nit ki jël ko ku nekk ak as boo am mën nga koo jëfandikoo pour que loolu dañ si yow soo ko jëlee si saasee dafa lay jox sa résultat faj bi gaaw na te it niñ koy fajee dinañ ko aar si nit ki ba daf koy faj si biir ak si biti ba te bu ko fajee bu dee garab gii lañ ko fajee moom du ko dalaat léeg-léeg di nga gis nit ko am feebar mu faj ko mu wér wala mu tane quelque temps nga ñëwaat fayaat sa xaalis yooyu yëpp dèjà ñun dañ koy ñaaw ñaawlu daal mais bu fekkee nit ki jël na garabu hémorroïde bii ñu si defar soobee Cheikh saaliw day si kàttanu yàlla nañ ko daan defee ku ko mës jël sant na si tey gën nañ see yaatal bu baax a baax a baax ay ay ay médicament yu am solo la si loolu garab yi am na fépp bu dee États-Unis Alassane moom moo ma fa nekkal New York New si ñu fa nekk mën nañu jël numéro yi woote après dinañ leen gindi nu gën a gaawee itali maa ngi foofu Bergamo comme niñ ko fa daan joxee rek gars yi ñëpp fi ñu ko doon jëlee lañ koy jëlee ba tey. Gandoo Sow via Tolari maa ngi nuyuwaale Moustapha bu dee fii si Dakaaru samedi dimanche lundi laa fiy nekk euh, ñi nga xam ni ñooy war a ñëw bu ñëwee ba Géejawaay croisement Béthio Cheikh Béthio continuer tuuti ñeenteelu mbedd bi sa càmmoñ nga jàddu foofu nga laaj kër sëriñ Sang dinañ la indi xam nga ñun lu ñuy def alxuraan na si ànd encore mais itam garab gi si wàllu sëy la jëm boo xoolee maa ngi la indiloon boo xam ni dugub la ak yeneen mais bii tey si garab la dañ ko liggéey ak basmala sirop bi mu ngi si moom itam day dolli kàttanu góor aar la ba nga mën a am njaboot ak aas boo am yooyu yëpp mu ngi si boo gisee kii abajada lañ adat nii def ko dañ ko doon def si fooy yu mag waaye léegi dañ ko defar ba su bu ndaw parce que nit ñi amuñu jot ak itam fu nekk mu mën faa dem looloo waral ñu liggéeyee ko nii ku ko jël itam bi sa wàllu say jafe-jafe boo si am dina dañ moo xam ki nga xam buy def farata génn si moom dafay gaaw wala mu yéex yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne ndaw ñaa ngi koy jànkuwanteel ak aussi ñu bari si seen kër mais kii ku ko jël mooy mus xam bi ma lay wax ba tey sa kër du tas te jafe-jafe du si am parce que li muy protéger sa góor dafa bari boo gisee mag ñi boo sampoon kër dañ lay wax sampal njaq pour doo am ay jafe-jafe si sa wàllu kër xeet yooyu yoo tax léegi nag ñun dañ koy composé ba nii nga xam fu ne la garab gi di mën a dem si àdduna bi mën nañ koo jëfandikoo fii mën nañ koo jëfandikoo bitim réew te fu ne dañ ko fay joxe wax dëgg yàlla di ko fa yaatal nit ñi di si jëfandiku di si gis seen bopp lépp aussi ñu ngi siy sant yàlla yorent bi Serigne Saliou Mbacke parce que xam-xam bi aussi si daaraam lañ ko jëlee euh, Serigne sang taali bi Serigne saaliw la def na ñaar fukki at ak ñeent xel koom ndooka njàppandul njurum daara yi Serigne Saliou di gëstu pour xam li ko Serigne bi xamaloon nag si lay xetti li jaam ñi tey. bis yi maa ngi nuyu ñëpp ñoo xam ne ñoo bokkoon ne fa mu ba Moustapha Gueye du nuyu sama mbokki taaliba yi waa xel ko képp koo xam ni daal aajo woon yii nga xam wane nañ ko si taalibe ak ub yar ak ndimbalul Serigne Saliou bu ñëwee dinañ ko li si nu mu gën a ak nu mu gën a rafetlu yooyu ku ko soxla wala mu bëgg ko si numéro bi muy woote dafay def 77 439 16 00 wala 76 688 25 64 wala nga woo ma si 77 439 16 00 yooyu samay numéro la pour ñi nga xam ne ñu ngi si biir réew mi ak bitim réew yëpp foo mën a nekk boo wootee même bu dee bitim réew dinañ la mën a orienté fi nga mën a amee garab gi si nu mu gën a gaawe